assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yow sama mbokk mi sama xarit bi maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziyaar maa ngi ñaan sunu boroom mu defal ñu jàmmi àdduna ak jàmmi yowmal qiyaamati nit ku ci nekk ci ñun boo ko xoolee di nga gis ci moom yàlla jox ko ay cër cër bu ci nekk am na lu muy liggéeyal doomu aadama bi ma buggoon nag ànd ak yow ñu def ak fàttali gu ndaw ci cër boobu di làmmiñ ñu xam ni nag dund doomu aadama bi li ëpp ci ak dundam làmmiñ moo koy doxal ci njariñ ak ci lor moom làmmiñ moo mii nag moo ñu mën a jural aljanna ëllëg waaye it mën na ñoo jural sawara bu ëllëgee yowmal yal yàlla nu ci yàlla musal lamiñ nag day participer bu baax ci dunduk doomu aadama bi loolu moo sabab yàlla wax ci alquraan ni maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid nee na bépp doomu aadama bu nekk sa lamiñ lu mu mën a wax mu bari mu néew am na ku ñu wax raqib ak atid ñuy ñaari malaaka danañu ko bind danañu ko garde su ëllëgee yowmal qiyaamati ñu gaaral ko borom bi kon nag yow sama mbokk mi nañu ànd defar sunu làmmiñ te ci wax lu baax ndax mu mën ñoo jural lu baax waaye suñ ci waxee lu bon dañuy jural lu bon te su boobaa du baax yàlla nag wax na ci alquraan ni yaa ayuha alladina aamanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida nee na yéen ñi gëm yàlla na ngeen ragal yàlla ci seeni wax ak ci seeni jëf te na ngeen wax wax ju baax wax ju set wax ju sell wax ju mën a yow sama mbokk mi ay kàddu nag saa yu jógee njariñ lay indi mbaa mu indi ak loraange yow mii di sama soppe di sama xarit di ab jullit nañu wax lu baax ci sunu lamit ngir mu man ñoo jural ak mbaax ëllëg yowmal qiyaamati te mooy aljanna moo tax ña doon wax lu bon ca yàlla ak di wax lu ñu xamut ca yàlla yàlla def leen waxoon ni leen ya ahlal kitaabi la taxlu fi diinikum wala taqulu ala allahi illa alxaq nee na yéen waa ahlul kitaab bu leen ëppal ci seen diine tayit bu leen wax ci yàlla mukk lu dul dëgg lépp lu ngeen di wax ci yàlla na doon dëgg na doon lu ngeen xam na doon lu leen wér sama mbokk mi budul woon sax lii ma la wax nit ku ci nekk ci ñun ngay mag di kilifa nga am xel lépp looy wax war nga koo teg fu wér lépp looy wax war nga koo teg ci lu wóor yow ak sa diggante ak sa mbokkum jullit rawatina nag sa diggante ak sa boroom di yàlla sa diggante ak sa yonent di rasulullah loo cay wax na wér loo cay wax na leer loo cay wax na doon dëgg loolu moo tax yàlla sunu borom di wax ci alquran naan wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadiba hada xalaalun wa hada xaraamun li taftaruu ala allahi alkadib in alladina yaftaruuna ala allahi alkadiba laa yuflixuun mataacun qalilun wa lahum cadaabun alim yàlla mu ni bu leen def lu ngeen xalaat rek ci ay nar rek lu seen làmmiñ xalaat ci aw nar rek ngeen wax ko yàlla mu ni bu leen ko def nee na bu leen gis lu ngeen gis rek ni lii baax na lee bon na lee baax na lee bon na te ba ngeen koy wax da ngeen ne nar jëme ko ci yàlla yàlla mu ni yéen ñi nga xam ni yéen a ngi wax ay nar di ko wékk yàlla du ngeen texe mukk nee na seenu ku bànneex ci àdduna lu néew la ndax léegi ngeen jóge fi te bu ngeen ñëwee yowmal qiyaamati mbugal mu tar mu sax ngeen di am kon nak lépp lu ñuy wax na doon lu baax na doon lu wér ngir sunu lamiñ moo ñu mën a yóbbu aljanna ëllëg waaye nag mbokk moo ñu mën a yóbbu safande ëllëg loolu moo tax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci xadis mu ni tuuba liman malaka lisaanahu wa baka ala xati'atih nee na xéewal ak banneex ak texe nee na ñeel na ki nga xam ni dangaa téye sa lamiñ ba noppi di jooy say ñaawteef mbokk nañu téye sunu làmmiñ lu dul ci lu baax te nañuy jooy sunu ñaawteef yi bopp loolu moo tax rasulullahi mu ni ida aradta an tadkura uyuba gayrik fadkur uyuba nafsik nee na soo toogee dem bay lim ñaawteefi jàmbur bi di lim ëyi bi jàmbur rasulullahi nee na bàyyil ëyi bi jàmbur te lim say ëyi bi bopp ku ne am na ay ëyi boppam nanu bàyyi ëyib yi suñuy mbokk te nekk ci suñuy ëyib ku ne am na ëyib ku ne am na njuumte nañu jooy sunu bopp te jéggalu ji yàlla ndax yàlla jéggal ñu kon nag lépp lu ñuy wax ci suñuy mbokki jullit na doon lu baax na doon luy jariñ loolu moo taxoon Abu Zar doon wax ni yéen day ñama ca xam-xam ngeen ma ñama xamul nag xamuñu ma man maay Jundub ibnu Junaada al-Ghafaari nee na kaay leen ma waxal leen nit ñépp dajaloo ci moom mu ni yéen nit ñi àdduna bi képp ku bëgg a tukki dangay ut sërite yóbbaale fa ngay tukki kon yéen ñi bëgg a tukki alaaxira te war a dee ëllëg nañu leen yóbbaale sërite ñu ni ko yow Abu Zar lan lañ war a yóbbaale comme sërite mu ni na ngeen di julli ñaari ràkka ci ci bu lëndëmee ngir ëllëg bu bàmmee ba lëndëmee yàlla mën leen a yërëm neena na ngeen di woor ci bés bu tàng jër ngir bu yowmal qiyaamate bu naree tàng yàlla yërëm ñu ca loola neena na nañuy sarax miskiin yi ngir bu yowmal qiyaamate danañ soxla saraxuk yàlla muy ak njëggalam neena nañu def àdduna muy ñaari jataay neena jataay boo xam ne dañuy sàkku xam-xam ak jataay boo xam ne dañuy sàkku alaxira allahu akbar mbokk lamiñ ñaari kàddu rekk la kàddu guy jariñ ci àdduna ak kàddu guy jariñ ëllëg yowmal qiyaamati kàddu gi ñu mën a jariñ nag ëllëg yowmal qiyaama mooy kàddu dëgg moo tax waykat ba ni woon awwit lisaanaka qawla sidqi tuxza bihi inna lisaana li ma awwitta mu'taadu ne na tamalal sa wax dëgg ndax lamiñ liñ ko tamal rekk lay xam beneen waykat nii واحفظ لسانك واحترز من لفظه فالمرء يسلم باللسان ويعطبه وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب نينا نغا وات سلامين تا نغا ديف نانك تي كادو يمي генي نينا دومو ادم بي تي لامينم لا مانا موتشي با سانكو با فاو نينا سوي واخ نغا كادو te it bul def foo dem rek di tartare di wax rek foo dem di tartare di wax rek sama mbokkum jullit bi nañu ànd ragal yàlla te sunuy lamiñ buñ ci wax mukk lu dul lu baax yàlla wax na ci alquran ni wa inna alaykum la xaafidin kiraaman kaatibin yaalamuuna ma tafaaloon nee na yéen day ànd ngeen ak ñaari malaaka yoo xam ni dañ leen di surveiller di leen xool ci li ngeen di def ñaari malaaka yooyu ñu tedd lañ ci man te lu ngeen def lu ngeen wax danañu ko bind yàlla mu ñu te lu ngeen def danañu ko xam yàlla nag mu ni inna al abraara la fi naim wa inna al fujjaara la fi jahim nee na ñi daan wax lu baax ci àdduna ak daan ka def ëllëg yowmal qiyaamati danañ dem aljanna ñi daan wax lu bon ak di ko def ëllëg yowmal qiyaamati danañ dem sawara yàlla nu ci yàlla musal ñun ñépp يالنا نو يالا گنا سخال تي صراط المستقيم لپ لو نارا دوخ سونو ديگنت اك جامو يالا يالا نانيو كو يالا خاجال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته